ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñu taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre vingt dix point cinq di ko déglu su ne tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle dalal professeur Cheikh Oumar Diagne euh, nekk euh, secretaire général du rassemblement pour la vérité nekk tamit expert financier spécialiste en finance islamique ñu fas yéene waxtaane ak kile di professeur Cheikh Oumar Diagne lu soxal islamophobie homosexualité bari bi nga xamante ni euh, secte yi ak tamit doole bi nga xamante ni franc-maçonnerie am na ko file ci Sénégal wàllum émigration clandestine bi nga xamante ni moo occupé actualité bi euh, ñu daal di koy waxtaane ak kile di professeur euh, Cheikh Oumar Diagne ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. jërëjëf sama Sabine am mbégte lool ci yegsi fii ci Rewmi FM. Mhm. di njort ni li ñuy dina am solo trop ñeel askan wi. di nuyu ñëpp ñu fekk si rajo bi sa baat tuuti voilà. ah waaw maa ngi jégalu. <laughs> ah ndekkee goo xam nga jaay ni ndekkee du wax bu baax. <laughs> dëgg la macha allah donc ñu ngi am mm. mbégte lool. ci mm. teew euh, ci studio bi macha allah. Mm. Euh, fa yéene seq ay tomb waxtaan yu am solo yu war a soxal askan wi. di ñaan yàlla yàlla defal ñu si taw tawféex ba lépp ñu ciy wax mu nekk mu nekk njëriñ. yi ñu lay jaajëfal sa disponibilité. parce que ah. yombul woon. topp naa si ba sonn. <laughs> c'est un devoir ñu ngi jégalu. topp naa si ba sonn pour mu accepter sama invitation cas ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité tey dinañ la laaj ci sa mm. euh, rassemblement euh, mm. pour la vérité euh, mm. exactement lan lañ mën a dégg ci mbir moom nga xamante ni teg nga ko ak lan moo ko tax a jóg waaw rassemblement pour la vérité lu lu yàgg la donc euh, c'est un c'est une formation c'est un rassemblement en tout cas d'ordre politique bu ay ndaw teg depuis 2016 donc am xalaat ci réew mi Euh, am xalaat euh, doxal réew mi waaye ci beneen vision bi nga xam ne gis ci bu amul Sénégal mm-hmm. ndax su may wax euh, rassemblement pour la vérité ñaar yi nga xam ne ñoo ko gën a ñoo ko ñoo ko bi si njëkk islam la Euh, ndax euh, ñi ko bokk ñi ko séq ñoo gëm ni islam euh, dafa yor ay solution yu mën a dimbali adduna bi yëpp mm-hmm. donc et malheureusement dans la sphère actuelle dañoo dañoo écarter islam ci lépp luy gestion ak doxalinu àdduna ñaareel ba c'est un une concentration sur si ñun suñu bopp mm-hmm. bu nekkoon peut Europe mm-hmm. on va dire que ñi dañoo nekk ci extrême droite ndax euh, dañuy xalaat bu baax a baax defar seen réew ak seen waa réew. Mm-hmm. donc euh, rassemblement pour la vérité noonu la demee. yow rassemblement pour la vérité. parti mm-hmm. politique la. Mm-hmm. Euh, lan mooy ay ambition exactement. <coughs> waaw c'est un parti politique. mais bi nga xam ne état Sénégal jox ko kayit. état Sénégal na nangulu ko existence am. ah nanguwuñ la jox récépissé comme ñeneen ñi. nanguwul am récépissé. lu tax depuis kañ nga ko teg. déet man tegu ma ko ñu ay euh, groupe ko teg. depuis kañ lañ ko teg voilà depuis ça fait quatre ans léegi. mais en fait idéologie bu mu bëgg taxawal. Mhm. Euh, suñu constitution moo ko bañ jamono ji ñu toll. ah moo ko bañ. moo tax mu taxaw voilà constitution moo wax ne. képp ku sukkandiku euh, si diine bu mu mënti doon. Mhm. pour andi ay solution ay réponse ci penc bi ñu ko war a doxalee état Sénégal nee na moom reconnaître la te nangu loolu la. donc euh, donc kon est ce que kon seen seen mouvement wala seen parti bi est ce que kon am na avenir fii ci Sénégal. Euh, à l' état actuel des choses je ne pense pas dama gëm rek ne peut être euh, mouvement de de contribution lay nekk. Mm. bi nga xam ne pour andi suñu ay xalaat. Mm. même bu dee c' est pas pour pour pour rechercher le pouvoir. Mm-hmm. ndax lu bëri Sénégal ñoo jàpp ni un parti wala un mouvement. obligatoirement dafay jéem rek dem à la conquête du pouvoir ce qui n'est pas le cas mm. on peut bien participer Euh, ci dëkk bi muy doxee sans pour autant nekk dans le pouvoir donc c'est très possible. xanaa yow looloo tax ngay dal tout le temps. ci hmm. ci ci Macky Sall président Sall. waaw Macky Sall moom doo ko may dara. waaw Macky moom wax dëgg yàlla. <laughs> Euh, dama ko boole si waa daayira ñàkk jom. Mm. maam nga xam ne. Mm. Euh, daayira ñàkk euh, jom. waaw daayira ñàkk jom. ay mm-hmm. nit ñoo ci bokk ñi nga xam ne dañoo amoon ci ñoom ñu si dañoo amoon ci ñoom yaakaar. Mm-hmm. jàpp ni ñii kat seen jom. Mm-hmm. na leen may ñu mën a relever yenn défis yi nga lu ñuy xaar si ñoom seen jamono moom mu nekk ndaw juddu après indépendance jaar fu métti ci àddunaam yoon xaar ci moom taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu am solo bu war a soulager les opprimés les faibles les pauvres ndax il est passé par là donc euh, mu ñëw nag euh, nekk benn benn impérialiste nekk un sous-préfet de l'Occident. Mm. donc Macky Sall wax dëgg yàlla. da euh, ci moom. ba man nag je n'ai de mm. la majorité des ndax gars yu bëri amoon nañu yaakaar bu rëy ci moom. ndax ba mm. su ma gisee ñu ko doon bàqee. ba muy ñëw ci nan ay ndaw la le plus jeune président il a nangam il est né après les man aw yaakaar ci moom ndax xam naa ni c'est pur produit du parti libéral. fi mu jaar yëpp il été créé par Wade exercer le pouvoir ba tey jii. Mm. man aw ma si yaakaar si. ci kenn aw ma yaakaar si kenn si ñoom. Euh, Senghor depuis Senghor ñu nekk dans l' appareil di mm. ko doxal aw si ñoom yaakaar wax dëgg yàlla. yow si ñoom yaakaar. mais mais est nekkul ni mm. tamit da ngay da ngay sànni xeer nii rek pour ñu jox la poste comme ñeneen. waaw waaw bu doon poste am looy <laughs> looy séntu quoi. ah bu doon poste moom wax dëgg yàlla kon instant yi am naa poste bu yàgg wax dëgg yàlla. donc wala Mhm. Euh, nit bu amee teraanga yu ko yàlla jox ba pare. Mhm. Euh, gëw ma am na leen lu mu mën a am. Mhm. xam nga nit doylu kese mooy mooy trésor bu gën a màgg bu doomu doomu aadama mën a am doylu. nit ki soo amee doyloo pare am ngëm. Euh, wax dëgg yàlla ñaax ko dara. ah mais fi am na ñu fi am lu ne tamit Cheikh te di xëcc ay ay ay postes. waaw saa ni xeer di kii on va venir sax ci xam nga nos hommes politiques. yu nekk ci loolu. dafa am ñaar yoo xam ne ko yóbbee. dañoo nekkoon ci biir nguur. jékki-jékki ñu seppi seen loxo lekkatuñu. Mhm. ñu génn commencé yuuxu pour ñu woo leen jox leen dara. Mhm. wala quelqu'un bi am dafa am mbooloo euh, dafa am bétail moom la moom laay woowee bétail politique. ci mhm. nga fii suñu parti politique yu bëri fii Sénégal. ils sont obligés jéem a naxasaale ànd ak nguur. ndax dañoo am mbooloo yoo xam ne ànduñu ci dëgg. li ñu ànd mooy dama lay taxaw fii nga taxaw ma fii donc ñoom seen parti yi euh, kuy ngénte ñoom ñooy ngénte ku feebar ñu jënd ordonnance maanaam ils sont très dépensiers. Mm. Euh, loolu dafay tax nag mun ñu toog sans yor xaalis te xaalis googu noonu euh, kenn du ko liggéey. loolu indi transhumance mooy andi seen ñëw ci euh, beneen sujet d' di mm. nomination Idrissa Seck. ci mm-hmm. conseil économique social environnemental mu nekk loo xam ne vraiment. Mm-hmm. doon nañ ko séentu ci politiciens yi fi nekk ñëpp opposants yi sauf mm-hmm. Idrissa Seck. tey jii mu def ko gis nga sax récente déclaration bi mu def bi ñu koy ak kàddu yi nga xamante ni tegoon na ko mm. ban jàngat nga am ci mm. euh, Idrissa Seck waaw Idriss Seck de wax dëgg yàlla euh, moom sax nee na moom il est très nuancé mm. personne nuancée donc moom wax dëgg yàlla kooku di ko kan jéem a ak di ko analyser wax dëgg yàlla lu jafe lay nekk mm-hmm. euh, dama gëm nag ma li mu la wax léegi rek man dama gëm ni ñëpp ñi nga xam ne dañoo exercer dans l'appareil taa yoroon ay nombal tànk mu mujj nekk ay milliardaires ñoom ñëpp ils sont milliardaires ñoom ñëpp euh, man dama jàpp ne ñëpp ñoo bokk benn mbuus bu ñu nekk c' est des jouisseurs ce que ce que j' de la république. Mm. ils jouissent de, de la république euh, ils vivent aux dépens de nous le petit bas peuple donc man wax dëgg yàlla euh, Idriss Seck bettu ma ci transhumance parce que man yàgg naa wax ne avant muy dem yàgg mm-hmm. naa wax ni Idriss Seck réeroowul ak Macky Sall mm-hmm. comme ni ma yàgg waxee ni Abdoulaye Wade bi actuellement réeroowul ak Macky Sall donc waaye nag euh, xalaatu ma woon mu ñëw dugg sees nag wax dëgg yàlla mm-hmm. sama xalaat maa ngi jàppoon ni Idriss Seck mu ngi négocier pour dem assemblée nationale pour nekk président assemblée pour mën a remplacer Macky donc man c'est lecture boobu laa amoon ci Idriss Seck dafa nekk dans le gouffre nekk dans la dèche am ay jafe-jafe ku am jafe-jafe. kon ne euh, li ñuy wax dafa bekkoor quoi amul xaalis moo tax. mu accepté nomination am na xaalis am na xaalis. waaw Macky yëfu caacaay mais nekk dans la dèche. Eh, yëfu caacaay la ko Macky def. Mm-hmm. Idriss Seck dafa bokk ci homme politique yi nga xam ne dañoo am ay comptes yu ngand yu am ay milliards ci bitim mm-hmm. réew. Idriss Seck ay comptes yu bëri yu gën a bëri. mu ngi États-Unis mu ngi mm-hmm. États-Unis ak France. Euh, après état nag dafa doy waar ndax état su amee partenariat moroomu état am sañ na euh, utiliser levier diplomatique boobu pour geler avoiru kenn donc Euh, wala pour extrader kenn ki nga xam ne mooy li état Sénégal def ak mm-hmm. états mm-hmm. ma euh, wax ne ah li ma wax ne am naa ci preuve wax dëgg yàlla lu koy prouver ah non di kay que état wu Sénégal dafa gelé ay comptes euh, Idriss Seck yu nekk extérieur Idriss Seck nekk dans la Bangladesh. ba ah. tax mu accepté. Euh, waaw li am tey jii xam nga kenn dama xam kenn si ay gestionnaire Idriss Seck yoo xam dafa démissionné. Mhm. xam naa kenn si ay gestionnaire de compte bu nekkoon États-Unis bi xam ne il a démi elle donc vraiment. Euh, moo la jox info yi. bon on peut dire waaw. Mhm. <laughs> léegi euh, nomination Idriss Seck. Mhm. ñenn ñi nee nañ président Macky Sall dafay préparer demam. maanaam ut ko ko wuutu. Euh, comme ça bu fekkee Idi wutu na ko euh, il va protéger sa famille kenn bañ ko tëj Mm-hmm. E-, e par exemple am na ñuy mm-hmm. wax loola mm-hmm. am na ñu naan euh, Idrissa sec dañ ko piéger euh, anéant anéantir ko à zéro comme ça Macky Sall en deux mille vingt quatre euh, pratiquement dootul am sax ku mu ku mu ku mu ku mu ku mu leewtool ci ci ci làmb ji carrément parce que actuellement gis nañ ne opposition bi amatul amatuñ sax opposition ici au Sénégal su weesoo Sonko ainsi de suite yow ban thèse nga ciy défendre dañuy préparer Idrissa Seck teg ko ci bopp réew mi wala Macky Sall daf ko nax anéantir ko comme ça 2024 mu gën a kii parce que gis nañ déclaration wu Idrissa Seck démb xaw bërki démb bi ñu koy mhm. samp moom am na ci ay waxam sax mu ngi ñuy wax waxi 2035 mhm. waaw est-ce que mhm. loolu du dëggal ni euh, peut-être euh, le président Sall dina laajat beneen mandat en 2024 comme c'est le cas Alpha Condé ce qui s'est euh, passé en Guinée ak Ouattara en Côte d'Ivoire waaw man man nag dama bokk si nga xam ne gëw ma ne Macky Sall mu ngi aspirer à troisième mandat bokkoo man man gëw ma ne Macky Sall loolu sax mu si xelam Macky aujourd'hui ay aspiration am euh, du du Sénégal. ak lu am si sous région bi. nii sous région bi yàlla dafa def ni ñu mag ñoom bokkuñu tradition. on n'a pas la même trajectoire on n'a pas la même histoire. Mhm. on n'a pas les mêmes euh, réalités sociopolitiques. Mhm. wax dëgg yàlla euh, pour man comparaison n'est pas raison donc dama gëm ni autant Condé peut faire de n'importe quoi autant l'armée peut sortir di rey ay nit. Mhm. nu mu leen neexee. mais la réalité de la Guinée n'est pas celle du Sénégal. donc man gëw ma ni Macky Sall mu ngi aspirer à un troisième mandat. premièrement. Euh, secondo gëw ma sax ni Macky Sall dafa nekk di préparer Idrissa Seck Macky Macky est si lâche euh, il yi képp kii xam ne sax dafay bëgg euh, toog fi mu toog moom il va se débarrasser de toi. même bu dee même il prépare personne. il a détruit Idrissa. Macky su doon préparer kenn sax. Mm. il préparera pas Idrissa Seck. Mm. donc il va préparer quelqu'un bi xam ne peut-être son frère wala keneen. mais il va pas préparer Idrissa mm. Seck it ànd mu ànd ak Macky compromettre boppam euh, gëw ma ne nekk na lu ko neex gëw ma ne c'était son premier choix euh, il a été contraint dañoo weñaar loxoom ndax Idrissa Seck ak Macky Sall ñoo bokk ay maanaam ñoom ñaar ñoo bokk équipe bi ñu nekk moom laay woowee équipe waa France. Mhm. donc équipe waa France ce sont des valets de service qui sont là qui croient que le pouvoir France moo koy joxe ñuy neexal tubaab bi pour tubaab bi jox leen légitimité chez eux donc man gëw ma ni Idriss Seck sax euh, euh, am na ambition nekk président pour 2024 ndax Idriss moom dafa waxoon ne day jël retraite politique en 2022 mm. il avait kon euh, su accepté compromettre xam naa dafa bëgg rek jotaat ay dërëmam mm-hmm. ak li xam ne dañ ko xoj mm-hmm. ba mëntu ci génn ndax mm-hmm. ay hypothèque yu bëri mu ko commencé woon sonal il avait besoin de son de tax mu accepté man kon gis nga ni président Sall préparé wul Seck président Sall aspiré aspirewul à un troisième mandat. loolu laa jàpp. kon président Sall pour yow ci lan la aspiré exactement. président Sall. Mm-hmm. du ay kilifa tubaabam dañ ko jox ndigal. Mm-hmm. depuis élection 2019 avant 2019 sax pour ne ko daal euh, contrat yi ñu signé ak Sénégal yëpp ak ressources yoo génn Sénégal dañoo bëgg nga stabiliser ñu Sénégal. donc euh, mission bi la ko ay kilifaam jox jéem na créer xool nu mu jéem a àndee nit yi pour ñu waxtaan jéem na créer ay dialogue jéem na def lu nekk corona bi sax jéem na essayer gën a renforcer. Mm-hmm. a xool a pour euh, euh annuler Euh, l' activité peut-être politique bi nga xam ne extrême mm. c'est-à-dire que ñi nga xam ne ànd ñoo ko moom def na tout pour ànd ak ñoom France dem na ba yónni président ancien président yoo xam Nicolas Sarkozy mu ñëw ba fii Afrique pour rencontrer Abdoulaye Wade pour xool ñoom ñaar dañu stabiliser pour ne ko bàyyil Macky Sall mu nekk président mm. Abdoulaye ba mu jógee Guinée boobu ak ñoom Alpha Condé ba mu ñëwee il n'a pas fait déclaration àndul ak kenn mm. te ñëpp xam nañu Abdoulaye Wade participation am ci élection 2019 mën na changé euh, beaucoup de choses moon tax sax deuxième tour am donc pour dire que la France est aux commandes euh, ak ay valem Idrissa Seck si valem la bokk France ñoo xalaat ne ko demal nga dugg parce que bugguñu problème waaye nag ils seront total grandement surpris. mais kon yow daal da ngay dëggal euh, que le président Sall c'est le gouverneur de la France au Sénégal. il est moins que gouverneur man dama jàpp ne gouverneur sax day am tuuti jom. am tuuti autonomie ak responsabilité. waaye Macky Sall il est peut-être benn sous-préfet la. sous-préfet ah, même wàcce euh, nga ko ba sous-préfet. waaw genre benn sous-préfet la bi nga xam ne wax dëgg yàlla. Mm. Euh, il ne croit pas en lui te ñoom moo jël benn disposition seetlu Macky Sall problème bu mënti am ak lu lu mënti xew Macky Sall il prend ses valises ses clics et ses claques jël avion dem France. donc Macky wax dëgg yàlla euh, Macky déclaration yu gën a am solo sax il le fait sur des chaînes françaises du wax ak mm. la. tubaab la ci biir euh, der baa ñuul kese wax dëgg yàlla waaye man dama gëm ne ñoom ñii ñëpp ils benn climat de sérénité de paisibilité ak de ak de confiance euh, pour mën a gën a may multinationales étrangères yi surtout françaises et yi. Mm. ñu mën a opérer euh, sans benn problème fii Sénégal. waaye nag euh, waaw Cheikh Oumar kañ lañ mën a séentu man 2024 dama si sa gis-gis yow. Mm. man dama jàpp ne 2024. Mm-hmm. Euh, on des acteurs neufs ndax aujourd'hui ñu ngi commencé am benn renouvellement ak benn sax benn mutation de des acteurs politiques euh, ñu bëri les acteurs politiques traditionnels c'était des partis politiques parti yooyu ñu ngi commencé instant yi di dee euh, président Macky Sall Euh, ak ses conseillers conseillers yu am solo nga xam ne ñu bitim réew ñoom Abdou Diouf si la ñu bokk. Mm-hmm. ak ay borom xam-xam yu rëy yi nga xam ne ñu ngi xool nu ñu dammatee euh, classe politique traditionnelle bi la classe politique traditionnelle dee na presque a démantelées euh, tout ça dañ ko damm créé na ay fiction ak ay fraction mm-hmm. donc waaye nag dafa am benn activité bu bees bi xam ñi doon jëf bàyyiwuñu ko xel dafa am une montée de nouveaux acteurs yoo xam qui ne sont pas politiques mais qui commence à avoir benn influence ak benn notoriété bi nga xam ne mën leen placer à un niveau bi nga xam ne ils peuvent euh, aspirer ultérieurement euh, à être aux commandes ëllëg euh, au niveau local dans leur localité respective et, mais finalement ku am légitimité au niveau local daf koy jox base pour mën a jéem am légitimité au niveau national donc ces acteurs là ñu si bëri si ñoom c'est des activistes ñii hmm. c'est des personnes de bonne volonté Guy Marius Sagna Guy Marius hmm. nga xam ne kii c'est un c'est un acteur nouveau qui n'est pas euh, purement politique qui est beaucoup plus euh, social citoyen Euh, et wax dëgg yàlla rien n'empêche Guy dans un futur proche nga gis ko mu taxaw localité am nga dafa bëgg nekk maire. Mm-hmm. pour changer directement ce qui se fait là-bas. Euh, ils sont nombreux c'est des jeunes qui sont là c'est des sportifs c'est des chanteurs c'est des gens qui sont vraiment engagés ci seen développement dëkk qui se sacrifient pour ce pays-là et que pays à un moment donné va dire que basta. nañ nañ dàq yi. voilà nañ dàq politiciens yi jéem a xool ponk bu am solo di wàllum islamophobie mhm. euh, peut-être man li ma lay laaj peut-être islamophobie bi dañ koy indi parce que euh, temps yi gis nga lu am ak mhm. déclaration bu Macron pour soutenir le journal Charlie Hebdo continuer mhm. leen euh, di caricaturer le prophète Mohammed te salut sur lui ah continuer di ko caricaturer au non lan de la liberté d'expression bi mu ko waxee gis nga tole bi mu jur président Macky Sall dem na am na lu mu wax am na ñu mu doy doyu leen yow pour yow lan moo waral àdduna euh, bi taxaw di xees xeex li nga xamante ni moom mooy islam lan moo ko waral pourquoi l'islam gêne waaw euh, yaa ngi laaj question bu am solo nag wax dëgg yàlla parce que euh, soo fàttalikoo àdduna jamono bu ne chaque quelque un siècle wala deux siècles àdduna dafay def lu ñuy wax benn reset. Mhm. dañuy def benn genre mise à jour ndax système yuy taxawal. Mhm. ay nit ñoo koy taxawal système yooyu ils sont pas infaillibles système yooyu dafa am benn jamono bi xam ça peut marcher mais am na benn niveau yoo xam su fa yeggee euh, ça ne plus. Mhm. il faut ñu réinventer ko il faut ñu créer un nouveau système. donc àdduna loolu mës a fonctionner. léegi nag dañoo toll ci jamono bi nga xam ne avec le vingt et siècle euh, l' léegi nag suy effondré wu dafa am benn alternative bi xam daf fi nekk alternative boobu noonu euh, arrangé wul les promoteurs euh, du système ultralibéral euh, alternative boobu c'est l'islam l'islam dafa am une vision politique l'islam dafa am une vision économique maanaam islam si alxuraan mhm. yàlla wàccewul julti nii rek ba pare bàyyi leen ak seen sago jox na leen lu ñu soxla ci kaw suuf jox leen lu ñu soxla yowmal xiyaam donc islam boobu nag vision politique am ak euh, solution yi mu joxe qui promettent un monde meilleur un monde plus équitable un monde juste un monde bi nga xam ne euh, caay-caay ak foo du nekk la base des modèles de développement loolu arrangé wul les promoteurs euh, du système ultralibéral moo tax ñooñu ils seront en croisade et ils ont totalement raison dañoo war a xeex la parce que ça va gêner mm-hmm. seen agenda ñoom bu ñu am mm-hmm. Mm-hmm. xeex boobu nag elle va passer par beaucoup de plans elle va passer par beaucoup d'étapes ñoom actuellement ñu ngi ci depuis euh, depuis début siècle bi maanaam ñoom du lu bees instant yi instant bi ñoo commencé assumer maanaam ñoom seen xeex jamono bu nekk dafa am leen li nga xam ne lu ñuy ciblé ñoom ils sont dans la prospective mm. dañuy wax ne fii rek 2050 dañuy atteindre nangam fële 2100 war nañu atteindre nangam fële 2150 nag war na fekk mbir yi jeex ñu xam ne instant lii moo fi nar nekk. Mm-hmm. maam toit bi noonu la ñuy xeexee. Mm-hmm. islam aujourd'hui dafa nekk seen collimateur ñu xam ni il faut ñu fagaagal ko ndax suñu bàyyee julti rek ils vont commencer à réclamer benn benn benn leadership islamique damay joxe exemple France bi nga wax léegi nii. Mm-hmm. en France euh, sondage euh, Institut Montaigne les sondages les derniers sondages ñu def ñoom ils disent que 32 pour cent de France. disent que ñoom euh, la république est contraire aux valeurs islamiques cest islam ñoom bu ñu gëm elle est contraire à ce qu'on appelle la république et que ñoom ils se voient pas dans la république il faut que république bi changer wala book islam bi changer adapté à la république cest que lii mm. autorités françaises ils savent ça ils savent que à terme avec le taux de natalité des musulmans nu mu nu mu gënee bëri ba su tubaab de souche parce que jullit ñoo fa ëpp ils sont mm-hmm. polygames le plus souvent ils ont beaucoup d' enfants euh, taux de conversion dafa commencé bëri nit ñi ñu ngi tuub dugg ñoom xam nañ ne à terme suñu sàgganee jullit ñooy ëpp France waaw d'ici ay cinquante euh, rapport yi ils disent que les musulmans seront majoritaires mm-hmm. ils risquent d'avoir des musulmans aux commandes des musulmans députés des musulmans sax mm-hmm. et ils ont peur pour aux traditions chrétiennes nag parce que tamit il faut ñu nangu ko. Mhm. France histoire am moo ko marqué. Mhm. donc France moom ak islam defaguñu un siècle. donc ragal islam ñëw bouleverser tout leur fondement historique ak toute leur histoire et leur passé wax dëgg yàlla autorité française actuellement ñu ci ciy xalaat. et ils veulent pas d'un islam en France et ils ont man man je trouve qu'ils ont raison nag wax dëgg yàlla dama jàpp ne kenn ku nekk sa tra sa aada da ko war a sàmm sa tradition da war a da a xeex pour téye ko mm. comme ñun tamit suñu tradition fii nu mu nekk islam ñu bañaa nangu tamit ñun tamit ñu yàqal suñu islam mm. dëkk bu nekk dafa am réalité bi xam ne dañ ko nangul donc ñoom aujourd'hui seen croisade bi du yam ci France ñu ngi koy yaatal ci dëkku àdduna yëpp et foofu nag laa amee man problème ak ñoom boo demee seen dëkk ñun bëgg ñu islam chez nous. Hmm. ça ne problème. mais ñu ngi koy yaatal ci àdduna bi yëpp di ko xeex mun naa joxe exemple dëkk mel ni Sénégal xam nga Sénégal. Hmm. am na fay écoles yoo xam ne c'est des écoles françaises qui la charte ce qu'on appelle AEFE. E. Hmm. mooy mooy l'association des établissements euh, français à l'étranger. Euh, écoles yooyu dañuy jàngale euh, programme français. dañuy promouvoir la culture française. dañuy promouvoir les valeurs de la France et, et parmi les valeurs de la France de la culture française euh, bañ l'islam ci la bokk euh, xeex le voile xeex tout ce qui est bu laal diine dañ koy xeex ils sont en train d'exporter modèle boobu ci yeneen dëkk àdduna bi dëkk yu mel ni Sénégal ay école a ngi fi nga dañoo signé charte AF mun naa si tudd ku mel ni Sainte Jeanne d'Arc mhm. dafa signé elle est mhm. affiliée mhm. Euh, à à l'AEFE et mu ngi mu ngi doxal programme bi nga xam loolu programme tubaab la du programme Sénégal ndax en France effectivement on a interdit à travers une loi les signes ostentatoires ak les signes islamiques le voile ak lépp dañ ko fa tere école yi amul droit def fa voile et cetera loolu c'est normal et c'est compréhensible parce que la loi française moo ko voté en France. Mm-hmm. mais nag une école bu nekk fii Sénégal ñun ñu am loi bi nga xam ne terewul muuru fii Sénégal notre loi terewul kuy muuru ku mu neex muuru ku mu neex bañ a muuru donc nit ki choix la. école ñëw fi moom di tere muuru ci biir enceinte am. Mm, c' est un grand problème. c' une mm. école qui dit ouvertement que man je respecte pas le droit sénégalais faale wu ko man je mm. en droit français. comme nekkul en France aujourd'hui donc pour dire que le modèle français est en train d'être exporté a terme nous allons avoir des jeunes yi nga xam ne qui ont été dans ces écoles là avec l'idéologie française avec les valeurs françaises jeunes yooyu amaana jamono dina ñëw ay xale yu jàngee cours Sainte Marie nekk ay ministre nekk président loolu moom danger gënu ko màgg ci ci dëkk. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal professeur euh, Cheikh Oumar euh, Diagne professeur Cheikh Oumar Diagne gis nga. waa coowal homosexualité. Mhm. gis nga ni instant bi ñoom sax weesu nañ fi ñu daan nëbbatoo léegi ñu ngi imposé wu euh, homosexualité au Sénégal fi mu toll mm-hmm. la fait instant bi dañu toll ci jamonoy imposé wu comme Mame Matar ni muy wax ñun bu ñu waxul da ngay jékki-jékki rek euh, mm-hmm. ñoom ñu génn ci mbedd yi mm-hmm. organiser marche comme niñ ko doon defee en France aux États-Unis euh, di wax voilà nañu dépénaliser homosexualité ainsi de suite voilà ban jàngal nga ci am actuellement le fait instant bi dañu toll ci ñoom toppee mbir mi. waaw euh, duggulet. Mhm. xam nga euh, mbir yi toujours dafay am ay euh, ay sources. yi mhm. nga xam ne mooy mooy base maam c'est des c'est des faits yi nga xam ne nit ki fa lay tàmbalee mbir yi di dox am yu koy dooleel am ay phénomènes yi nga xam ne ñoo koy màggal ak di ko dooleel. homosexualité au Sénégal aujourd'hui Sénégalais yëpp war nañu mën a seetlu ne depuis ba Macky Sall nekkee président Sénégal. waxu homosexuel dafa gën a dafa gën a yaatu. Mm. dafa gën a fréquent dafa gën a rëy. Mm. lii c'est pas un euh, mun naa tudd euh, benn document bi nga xam ne lu ñuy wax EPU euh, en Sénégal ba muy dem Nations Unies ci benn comité des droits de l'homme wala bokk kuréel bi nga xam ne mooy saytu ak ak doomu aadama yi. dafa woowoon Sénégal convoqué ko pour benn EPU yu ñu wax examen périodique universel donc daf ko woo pour laaj ko sur la question des droits. loolu c'était en 2013. en 2013 rapport bi nga xam ne moom la ñu seqaloon Sénégal euh, rapport bi il faisait état de 188 recommandations yu ñu jox Sénégal yi nga xam yii dañoo wax Sénégal ne ko euh, Sénégal yii Sénégal dafa engagé ne su ma demee naa ko dugal sama dëkk yii mu taxaw ne may leen ma ci ma xalaat ci yii mun leen yii moom mënuguma ko def yii moom mu bañ ko carrément ne man defuma ko. Mm-hmm. l'homosexualité était au cœur de cet examen là parce que au niveau des Nations Unies aujourd'hui Nations Unies dafay promouvoir l'homosexualité dans le monde euh, à travers les droits de l'homme droit de l'homme bi nga xam ne qui est très évolutif chaque fois ma ne de l'homme dañ ko war a ragal ndax mm-hmm. droit de l'homme c'est un mm-hmm. fourre-tout mm-hmm. on peut tout actuellement jamono bi ci àdduna bi lépp ci biir orientation de l'homme la bokk donc pour dire que rek dañoo war a ragal baat bi ndax baat bi lu mu ëmb mu bëri donc Nations Unies boobu nag di doxal mbir yooyu dafa teg baaraamu tuuma Sénégal ne yow euh, tu es bi ñuy coow ci àdduna bi yow doxaloo ko sa dëkk Sénégal joxe ay justification euh, yàggul noonu am na beneen délégation sénégalaise bu dem Nations Unies bi nga xam ne ñoom euh, délégation bi ñu siiw xam nañ leen xam nañ kenn ku nekk mu tudd ak fu mu dëkk euh, wax nañ carrément ñoom ne ñun ñun Sénégal terewuñu homosexualité maanaam lii c'est des officiels sénégalais ñoo ko wax mm-hmm. ne ñun terewuñu homosexualité Euh, suñu loi amul benn loi bu si tere homosexuel li Madické Niang waxoon na ko en 2011. Mm. ba mu mm. demee au niveau de euh, comité des droits de l'homme euh, récemment régime Macky Sall tamit waxaat nañu donc ñoom kon jàpp nañu ni homosexualité Sénégal terewu ko. Mm. déjà muy benn. acte contre nature moo la ñu tere Sénégal te acte contre nature boobu c'est un fourre-tout ça veut rien dire instant man mii su ma amoon jabar tey. mag sama jabar ñu nekk si mbedd bi di def naka su dul noonu acte contre la. actuellement bi ça suffit pas homosexualité ça mm. suffit lépp li nga xam ne qui est choquant qui mm. peut choquer les bonnes mœurs ak les valeurs mm. donc euh, même bu dee góor ak jigéen tant que ñu koy def daal seen biir nekk tëju la euh, ku nekk sa biir nekk def la neex dara du la ci fekk waaye ku nekk sur la place publique la yoon tere donc euh, homosexuel nag dañoo gis ne leen dooleel ñoom dañoo leen dooleel ndax yàlla dafa def ni Sénégal aujourd'hui bëri na ay borom ndombol tànk ci kaw nguur gi yoo donc euh, et loolu régime Macky Sall bi régime bu si bu si fës la. mais Cheikh Oumar Diagne est-ce yow li nga wax am nga si ay preuves. su ma amuloon preuve du ma ko ñemee wax parce que li may wax nii lu grave la. Hmm. xam nga xam nga ñaar wala ñett. xam nga li may wax nii. Hmm, hmm. li may wax dafa grave ba nga xam ne. bu fekkoon amul instant kon yóbbu nañu ma rëbës yàgg na. ndax euh, ji nga nguur nguur ku koy waxal lu mu xamul wala di ko tuumaal kooku dafa xamul lu bëri maanaam kooku bopp bi kon woyul. ndax ku yor ndombal tànk am puissance yor décret yor yor yor armée yor police kooku soo ko waxalee lu lu nekkul ci moom da nga ko may occasion mu briser la donc on xam nañu bu baax a baax li ñuy wax dama ne nguur gi ñu am actuellement ba ci gouvernement actuel bu Macky Sall la Mm. près de la moitié ay góor jigéen lañu. ci moitié bi góor gi ah, donc ay góor jigéen lañu ay góor jigéen lañu lu tax ma wax loolu. Mm. te bokkul sax yenn yi nga xam ne. Euh, lu lu mat a fàttali la waaw ah, loolu si wax doo may sama la. ay diw lii la eh, ah gars yi eh, nee nañ nag loolu dafa yomb de taxaw rek. naa ñii ci nguur gi ay góor. Euh, xaaj bi góor jigéen lañ c'est trop facile. dinaa si ñëw léegi il faut apporter des preuves. mu lay wax ni c'est que la charge de la preuve incombe la code COCC wax la code. maanaam tey bu ñu la convoqué euh, woon nga génne preuve. ah ñoom bu ñu ma convoqué ñoom parce que xam na ni ki am na preuve lu muy wax. Hmm. ils ils donc je veux revenir à si yenn événements yi xam ah, mais loolu c' grave de parce que boo nee màccee ñu nekk ci nguur gi ñëpp ay góor jigéen lañ c' grave. bon le gouvernement quoi pas nguur gi ndax nguur gi yaatu na. nguur ah, gi mooy nguur gi. waaw mais nguur dafa yaatu am na ñeen yoo hmm. xam ne nekkuñ ci gouvernement bi mais ñu ngi ñan ngay waxal yow kon les ministres ministres yi gouvernement man je parle du gouvernement ah, président ak ay ministre am ok ñoom kese laay wax waaw euh, voilà man waxuma ay DG yeeg waxuma euh, hmm. attaché yeeg conseiller spécial non yegguma foofu man ñii nga xam ne ñooy ministre yi ak président dama ne ñii laax ñu si ëpp si ñoom ay góor jigéen la lu tax ma wax loolu naa ñëw léegi si benn hmm. fee bi nga xam ne dama jàpp ni fee yi baax na ñu koy fàttali Euh, Macky Sall ci boppam avant 2012 li muy wax nii mun naa ne 2004 mun naa dem ba 2004. jamono bi yooyu ministre. Mhm. ministre de l'intérieur. première marche góor jigéen Sénégal ci ci ministère am la amee première marche c'était en 2004 lii c'est vérifiable mu ngi si internet ku mu neex ma dem xooli ko euh, góor jigéenu Louga yi ñoo jëloon décision dañuy def marche marche de soutien à Magnan Kassé xam ne qui avait des problèmes ñu porté ko plainte. Mhm. ñu koy taxawu. les imams de Louga ak euh, sëñ daareek yëpp mhm. defoon nañu ay sorties yu métti di mhm. kaas ci rajo yeeg fu ne dañu am du a seetaatu ay góor jigéen def marche Sénégal euh, ce sont les services du président Macky Sall euh, ñoo diligenté affaire bi sous instruction du président Macky pour ñu taxaw leen pour ñu protéger leen mhm. pour ñu rawale leen loolu kese permettre kenn wax dara ndax stabilité dëkk ak paix sociale. Mhm. Euh, ministère de l'intérieur dafa am devoir taxaw ko. Mhm. yàggul tuuti ñu nommé Macky Sall premier ministre quelques mois on assiste ak ay trois quatre mois parce que en avril bu léegi c'était en janvier en avril yooyu ñu nommé ko premier ministre. première délégation góor jigéen Sénégal jug di ko ndokkeel na ñoom seen góor la leen nommé la li ma nii c'est c'est de lii lii c'est des c'est ku mhm. ko neex ma dem xool. c'est c'est à vérifier les gens peuvent aller seen góor ils ils ont été dispersés par la police après am na si yi nga xam ne dañ leen jàpp yóbbu leen police centrale même yooyu seen góor ki leen ki ñu fal seen nit la si ñoom la bokk. Mm-hmm. wax bi nag wax bu extraordinaire la wax la bu ñu war a jël avec des pincettes xoolaat ko bu baax a baax wax boobu lu tax ñu koy comprendre après parce que li c'était en 2004 en 2012 lors des campagnes présidentielles. Mm-hmm. bu Macky Sall. Macky Sall est le seul candidat fii au Sénégal bi nga xam ne ay góor jigéen français dañoo def la déplacement ñëw ba fii pour jàppale ko ne ñoom mooy seen candidat ndax ñoom ñoo bokk ay ay croyance ak lu ñu gëm mhm. te dañoo bokk lu rëy rëy mun naa cité ku mel ni Bertrand Lanoé mhm. Bertrand Lanoé moo nekkoon maire Paris moom góor jigéen la moom nëbbatuwul il s'est marié en Afrique du Sud avec beneen euh, beneen naar bi nga xam moom il ñoom ñoom waaw ñoom y a une loi ah, sax voilà ñoom mm. la loi du mariage pour tous mm. ils l'ont voté en France mm. ñoom foofu dañuy dañuy wax carrément je homosexuel nangam je bio nangam donc il a fait le déplacement ñëw ba Sénégal ne moo ko Macky Sall ñoo bokk yu rëy rëy yi nga xam ne moo tax mu koy jàppale Bertrand Lanoé nag may fàttali ne Bertrand Lanoé c'est c'est un donc euh, politiquement kon bokkuñu ñoom ñaar bokkuñu fu ñu bokk Macky Sall prétend kenn du si kenn du si musulman kenn du si chrétien ndax islam ñoo bokk ay valeurs ñoo bokk ñoo bokk une trame de normes ñoom ñaar c'est c'est des religions monothéistes basées la vérité sur le pardon sur le et cetera ñaar kon bokkuñu kon li ñuy prétendre nekk sax ci wàllu diine bon Bertrand tubaab la. Mhm. Macky Sall ni ku ñuul la. ñoom ñaar ñoo bokkul dara a priori donc euh, li ñu bokk li ñu mën a bokk wax dëgg yàlla bëriwul Bertrand Delanoë nag et ñu koy tudd ci dans la maçonnerie donc euh, Macky Sall tamit tudd nañu ko dans la maçonnerie ndax moom tamit en 2013 le rapport Jeune mm-hmm. Afrique partie donc yemul ci Bertrand Delanoë Jacques Lang qui s'était paxé avec Yves Saint Laurent góor jigéen bu mag la bi nga xam ne tamit mag yi mooy candidat ndax ñaar ñoo bokk ay gëm-gëm kii nag moom il dit tout haut il dit partout moom gëm-gëmam mooy fileeg nit yi libre ñu ba seen orientation sexuelle ñu mën koo dund nu mu leen neexee mu ne képp ku gëmul lii moom du allié ak yow du xaritoo ak yow te du ànd ak yow mhm. te yow noonam nga moom bu dee nag Macky moom xaritam la ñoo bokk gëm-gëm ba pare il daf il l'a publiquement assumé Ah, ah, ba ba Obama ñëwee en 2014 di wax ak moom. Hmm. Macky Sall xam ne kii c'est un pro gay Macky Sall il est pro homosexuel. Euh, discours am musul varié il a dit clairement à Obama ne ko Sénégal pareegul pour doxal fi homosexualité. Hmm. cest à que waxul ni du ko def ak. wala non il n'a pas dit il n'a pas été ferme comme ni mu tàmm fermé avec les Sénégalais. avec les Sénégalais il fait le guerrier il fait le hmm. dur. du ko def mais avec su génnee dëkk tubaab bi il est doux. man moo tax bokkal si li tax Macky Sall ma koo bëgg ndax nit ki mënu ma comprendre ku ku bëgg nekk gaynde biir këram nekk xaar àll ba te Macky Sall noonu la mel donc daf ko Sénégal n'est pas encore prêt wax bi wax bu wax bi il prend tout son sens te baa nga koy comprendre nga dellu euh, France ci jotaay bu mu am ak euh, Macron ngay comprendre lu tax mu ne il n'est pas encore prêt il a dit que dëkk bu nekk dafa am ay tradition ak ay valeur am il faut laisser le le temps tout va se passer xam nga kuy wax lii moom mm-hmm. xam nga ni il mm-hmm, mm-hmm. benn fee bi xam ne fee la bi xam tamit Sénégalais yi bëri ñu koy fàtte waaye fee la bu jara bu jara fàttali en 2016 le député Amadou Mbéry Sylla bu député de la coalition présidentielle moom Macky Sall ñoo bokk camp il avait introduit à l'Assemblée euh, un projet de loi euh, pour criminaliser l'homosexualité li tamit c'est vérifiable ah c'est Mbirisi la moo nekkoon président du conseil départemental de Louga il a réussi à à à à soixante-dix signatures de députés mm. pour ñu mën a voter une loi criminalisant l'homosexualité Macky Sall est intervenu lui-même pour pour faire la loi à l'Assemblée donc président bi xam ne nag mu mm. mu ngi doxal góor di waxal góor jigéen ñi euh, ay góor jigéen financé ko parce que on connaît xam nañ ñenn ñu ko financé en 2012. ñi nga xam mm. ne dooy si wax kenn. Euh, non c' est des c' est des associations LGBT France. Mm. Euh, association mag la bu yor kuréel la buy taxaw góor jigéen ñi en France. Mm. mais association boobu jàppale na Macky Sall. en 2012 financé nañ ko en 2012 donc pour dire que. Mm-hmm. président bu mel noonu. il dañ ko war a laaj ñun pour man la seule question qu'on doit lui poser mooy mooy monsieur êtes pour man journaliste yi war nañ taxaw ko. Euh, mu leen laaj boobu ndax nit euh, président euh, Macron si moom ay journaliste français laaj nañ ko parce que moom il est homosexuel. Hmm. kon hmm. hmm. donc gars yi xam nañ sax ki mu nekk loon PDG d'un ko laaj ne ko êtes-vous bu dee il s'est. il de. Macron ba léegi assumé ko dafa daw dafa ne non non man du ma homosexuel. man sama j'aime ma femme Brigitte Nangam. mais on l'a demandé pour mu pour am le cœur parce que dañ ko ko si tudd. xam faram. Ah, Macky Sall nag am ñu ko si t nag. ndax gars yi neen seen góor la su ñoom la bokk pour man journaliste yi war nañu am sañ-sañ taxaw ko ne ko monsieur le président dañoo bëgg nga leeral ñoom ndax waaw wala déet da nga bokk ci gars ñi. ayca mi ngi noonu te xam naa ne bu sëree kon grandement surpris. kookoy Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne ñu laajaat la ci beneen euh, ponk bu am solo temps bi mm. bareetul mais foog ñu mm. laaj la ci. Mm. Euh, gis nañ ni euh, secte yi. ñu ngi gagner de plus en plus le Sénégal ñu ngi gën a am doole. Mm-hmm. et puis ñu ngi sànq nit yu baree bari. Mm-hmm. dinañ la laaj secte ak franc-maçonnerie déjà luy différence bi parce que bu ñu duggee ci. franc-maçonnerie du ñu am temps pour développer carrément. Euh, peut-être dafay. Euh, mm -hmm. ça une. peut-être ñu def ci émission entière la franc-maçonnerie mhm. mais secte yi mhm. dañu commencé bari mhm. euh, lan mooy différence su sect yi ak euh, franc waaw euh, la franc-maçonnerie benn kuréel la bi nga xam ne wax dëgg yàlla yàgg na bu boole ay nit yu jàpp ne ñoom c'est ay xalaatkat lañu yi nga bugguñu diine tënk leen bëgguñu aada tënk leen am benn projet de société mondiale bi xam ne moom ñu bëgg a taxawal ñoom ci àdduna bi. mooy nouvel ordre mondial. waaw ñoom jàpp ne ñoom ñoo war a tabax. Hmm. ni dafa am benn ordre bi nga xam ne warul bokk ak l'ordre ancien. Hmm. l'ordre ancien mooy l'ordre qui régit sur des valeurs ancestrales ak sur les religions. Hmm. ñoo jàpp ni lii nii dafa coïncidé ak jamono bi nga xam ne nit xelam moo màggagul woon. la science ñëwagul woon l'individu n'était pas encore ëpp. ñoom dañoo jàpp ni ordre a nit bu bees bu ñu war a tabax moo tax ñoom ils s'appellent sax maçon ils se font hmm. appeler maçon dañoo jàpp ne ñu a tabax lu bees beneen lu bees donc la moom Euh, kuréelu seytaan la. Mhm. Euh, kuréelu ay saay-saay la. c'est satanique am na euh, a mhm. a beaucoup d'obédience a mhm. am ñoom pour ñoom franc-maçonnerie occasion la pour avoir ay ay ay ay relation mm. am ay contact am mm. ay am ay euh, carnet d'adresse bi xam ne moo lay permettre nga gën a mën a yéeg dans mm. l'ascenseur social donc ñoom la ñu ko jàppee mais euh, franc-maçonnerie yëfu seytaan la maanaam mais dañuy faral di wax Cheikh Oumar Diagne euh, pour nekk président si jamono ji foog nga nekk franc-maçon parce que gisoon nañ sax déclaration wu Nicolas Sarkozy su ma mm-hmm. juumulee mm-hmm. mu ne à moment donné il faut passer par la franc-maçonnerie est-ce que yow lu ni mel da nga koy bon je dirais pas tout. Ouais. ils sont pas parce que loolu réalité africaine. Mhm. mais xam naa ne même si fii Sénégal. Mhm. yenn yenn position yu bëri ku nekk lu franc-maçon la fa teg. au sein de l'armée au sein de l'État dafa am beaucoup de parce que ñiy doxal dëgg-dëgg dëkk bi. dafa am ñu bëri loolu mirage dafay nax doomu aadama yi. Mhm. dafa am lu ñuy wax le deep state maanaam l'État profond. l'État profond mooy doxal dëkk bi ñun ñuy gis nag mooy le ministre ñii doxaluñu dara si dëkk bi. dañ leen fa teg nii rek. ay figurant ay figurant lañu. waaye am na ñenn ñi nga xam ne position ñu nekk président teg leen fa te président bu ñu dafay dem bàyyi leen fa ñoom ñooy doxal lii tel sujet ñoo koy doxal ñii ils sont très forts. ñu si bëri si ñoom nag ils appartiennent à ces loges là donc loges yi nag am nañu influence bu mag bu ñu am sur le continent africain une très grande influence surtout fii au Sénégal euh, yàlla def na déjà président yi fi jaar yëpp ñu si ñun ñëpp ils font partie des loges Macky Sall fait partie des loges franc-maçon la euh, Abdoulaye Wade franc-maçon la ah, ah, am nga ci preuve ah oui suñu si amoon preuve duñu ko wax mais Cheikh Diagne su ko ko waxal lu amul te mënoo ko juger mënoo ko prouver dalay xëccal article quatre-vingt jàpp tëj la dama ne ñun ñun nekkuñ di waxantu parce que dañoo am suñu njaboot ñu bëgg dem ñu bëgg dem kaso di hmm. suñu kër dafa neex mais yow kan moo ah loolu moom man la concerné parce que ni ku nekk sa information xam nga yow yow journaliste nga <laughs> fi ngay wutee information yow journaliste ne trahit jamais ses sources donc man am naa samay information am naa fi may informé mhm. mais lépp lu may wax am naa preuve yoo xam ne mën na ko étayer en en 2013 euh, liste des présidents maçons mais weddi na ko. ah waaw on, on, on reconnaît pied du mur maam la dans la maçonnerie dañoo may franc ne ko yow su la ko jiiñee mën nga wax dee du nekkuma ko euh, pour te protéger. Mhm. donc euh, mais en tout cas les présidents sénégalais ñu si bëri en tout cas c'est des maçons. Abdou Diouf moom c'est grand maçon bokk na si les plus hauts gradés. Euh, ici en France donc secte kon ak franc du ñu benn. waaw secte bi parce que cinq minutes. moo ñu dese foog nga wax si tuuti. bi nga xam Euh, ay nit tase bokk gëm-gëm. Mhm. bokk pas-pas di mhm. doxal dara. Mhm. Sénégal nag dañoo bëri ay secte loolu. te secte yooyu yu si bëri mbiru iblis ak la mbiru iblis la mbiru idéologie. lëndëm la mais ñoo fi gën a dañoo bëri temps yi te ñu ngi xëcc ndaw yu bëree bëri. lu tax ñu bari nag dafa am ay cause euh, immédiate ak ay cause lointaine ñu war a bàyyi xel. d'abord dafa am benn absence législation au Sénégal maanaam Sénégal ñun euh, amuñu législation buy contrôler le culte. moo tax ku mu neex mën na ñëw fonde fi am di ko doxal ñu bëri ñu dàq ci dëkku Afrique centrale yi ci seen ay secte yu bizarre ñu am dañoo jógee foofu ñëw fii lu seen benn kër defar ko fii secte di doxal seen biir parce que état Sénégal contrôlé wu leen euh, xoolu leen déjà lii dafay yombal ñëw bi am dëkk yi nga xam ne doo ñëw installé fa di euh, am ay nit dëkk mel ni France par exemple euh, y a une cellule qui suit toutes les associations ak tous les rassemblements maanaam soo amee vingt personnes la topp rek la commencé suivre di xool la ngay def mm-hmm. Sénégal kon ñu am na législation kon muy benn ñaar Sénégal dañoo nekk ci askan yi xam ne askan dañoo ndóol dañoo am ay jafe-jafe xale yu bëri am ay problème euh, lu leen yóbbaale euh, dafay yomb donc kon fii y a presque l'ensemble des ingrédients pour que bombe bi mën a exploser correctement fii au Sénégal te donc ñaata secte moom Sénégal euh, ba ñuy mujj def ay ay recensement nous étions à cent douze sectes mm-hmm. ci fin d'année donc euh, chaque année on fait benn état des lieux. pour xoolaat 112 sectes au Sénégal. au Sénégal. mais mm. secte da nga ciy dugg pour xaalis ñi ciy dugg souvent c'est pourquoi exactement.

xam ne. donc secte tamit c'est satanique. yëpp c'est satanique lañuy dañuy doxal dara. du tous les sectes si àdduna bi ils sont sectes yëpp yëfu la maanaam dañoo dañoo yàlla wax dëgg hmm. yàlla. ba jox sax baat bi sax hmm. yàlla dafa dëgg yàlla. donc hmm. ñoom ñëpp ñoo bokk mbuus. ñu laaj la ci Akon City bi parce que def nga déclaration ne Akon City. Euh, Akon euh, moomu ci dara du projet Akon. ay ay ay franc-maçon ñoo kii projet bi. lu ni mel da koy dëgg lu tax nga fortune am xam nañ ko. Akon dans dans le classement forme sax Akon du milliardaire. en mhm. en en en dollars. Mhm. Akon est en CFA. par exemple mais pas en dollars en mhm. dollars Akon sa fortune se limite à cent dix cent de dollars. donc projet moom si moom si première boo xam ne dix huit milliards la lépp au total. Ah, dix huit milliards bi nga xam ne quelqu'un bi nga xam fortune am cent dix millions de dollars la am projet dix huit milliards. dañ ko war laaj na ko man 18 milliards de hmm. sax 6 milliards la wax moom na un tiers bi doxal na ko 6 milliards dollars la même bu doon 6 milliards dollars sax amul kàttan boobu bu doon 1 milliard dollars sax amul xaalis boobu on doit lui demander légitimement qui sont tes partenaires nest pas donc Akon euh, n'est qu'un prête ci ci hmm. ci ci projet bi projet bi nag hmm. Euh, gëm naa ne bu sottee fii Sénégal waa Sénégal dañu am loolu leen métti ndax ndax bëri nañu si bokk ñi nga xam ne dañuy wax ouvertement ku mel ni Bill Gates tam mën naa joxe lii moom mën naa joxe information tey. Mhm. Bill Gates est est dans ce projet là. Mhm. Bill Gates nag. Bill Gates si projet. Akon City la bokk daf si bokk. joxe ñaata. Euh, nit euh, euh, daf si dugal xaalisam. Mhm. en tant que actionnaire Bill Gates dafa baax ñu xam moom mooy kan Bill Gates nit bu bon comme moom ci àdduna bi. Euh, amu ci ñaar. Mhm. maanaam Bill Gates dafa am ñu bëri dafay investigation ci moom ba bind ci moom sax ay livres maanaam c'est le faux philanthrope Bill Gates dimbaliwul kenn boom euh, a a financer a mhm. euh, mooy projet bu gën a ñaaw te gën a bon te projet boobu Sénégal fii ñëw na fi kenn waxatu ko pour jël ndox yi nga ndoxu wanak yi transformé ko jox ko doomu aadama yi ñu koy naan. Mhm. pourtant projet bi woon fii Technopole. machine bi andi na fi machine amoon na fi coow bu rëy gars bëri bàyyi mu set te pourtant bàyyiwul mu ngi dox ba tey mbir baa ngi dox de mm-hmm. donc pour dire que Bill Gates lépp luy euh, maanaam eugéniste la maanaam soo xamee l'homme rek soo xamee kuy eugéniste la nga xam kon Bill Gates baaxul mm-hmm. eugéniste mooy ñi xam ñoo gëm ni doomu aadama ñoo bëri trop Euh, il faut ñu wàññi doomu aadama yi pour ñenn kese maanaam les meilleurs ñoo dund mm-hmm. maanaam les eugénistes tous darwinistes dañoo gëm évolution gëm ni les plus faibles comme dans forêt dans la dans mm-hmm. leen war a rey mm-hmm. euh, faire avancer l'espèce humaine bi gis si ñooñu la bokk donc lii rek jeexal na jeexal na wax donc ci projet Akon bi dugal na ci xaalis euh, fa ñuy jeexalee peut-être bind nga ab livre tuddee ko République privée du Sénégal ci livre bi gis nañ ni yaa ngi ciy wax tënk suñu république yëpp pratiquement c'est maçonnique suñuy mhm. signe tout tout tout tout est maçonnique parce que mhm. maçon yi ñoo ko tëgg les francs-maçons mhm. voilà waaw Sénégal avec l'époque coloniale Sénégal c'est une création purement coloniale Sénégal man su ma déggee daan Sénégal benn bopp la sax may jàppale Sénégal c'est une création purement coloniale Sénégal ay tubaab a ko bind ñoo ko créé lépp lu ñuy woowee tey Sénégal nag moo xam euh, devise Sénégal la moo xam hymne Sénégal la moo xam armoire yi Sénégal yi mooy emblème yi xam ne mi nga xam ne Sénégal moo xam drapeau Sénégal yi lii yëpp li ñu ci wax ak li mu li mu am dëgg-dëgg dafa ute loolu maanaam dañoo nax mhm. euh, li ëpp ñu ko defar ñu si bëri un d' abord ay tubaab lañu ba ma gëstoo xool ne ñoo defar li ñuy woytee Sénégal mhm. d' abord dama gis ni ñoom ñëpp ay tubaab lañu muy benn mhm. ñaata ma gis si ay tooxal yi nga xam ne ñu si gën a bëri si ñoom dañoo mhm. bokkoon si ay loge maçonnique mhm. maanaam dañoo jël ay symbole franc-maçonnerie andi ko si lu ñuy woowee tey ji Sénégal donc ma gis ne kon loolu nag dafa dafa yell ñu toogandoo xalaataat euh, xool nu ñu dindee loolu yëpp pour tabax Sénégal bi nga xam wax dëgg yàlla dafa méngoo ak suñu aada ak suñu ay diine ndax Sénégal nag qu'on le dise il faut qu'on ak christianisme ñoo fi nekk maanaam c'est les valeurs de ces deux religions là mun leen ignorer ci tabax Sénégal bi nga xam ne moom la ñu war a bokk mun dund en paix. Hmm. donc euh, kon ñun daal yi ñuy tiitaroo yu si ëpp daal c'est c'est maçonnique. ça n'a rien à voir avec la religion rien n'est ba pare rien n'est musulman ni chrétien wax dëgg yàlla li bëri li ñuy woowee Sénégal baat bi sax Sénégal dañu cee nax baat bi fu mu jóge sax waxuñu ko. Ah fan la jógee ñu ñuy gëmloo nañu hmm. sunu gaal la c'est pas vrai. Hmm. Euh, les historiens sax ne sont pas d'accord ci baatu Sénégal fan la bàyyi ko. dañuy wax ah. tamit souvent que laïcité c'est une religion parce que dañu foog ni laïcité. Hmm. mooy Sénégal chrétiens yi jullit yi vraiment ñu ngi dund en en harmonie et eh, tout. Euh, et c'est totalement faux c'est c'est la religion de la République laïcité franc-maçon yi ñoo ko. créé pour xeexee ko effectivement franc yi ñoo ko créé pour xeexee ko église. laïcité bi ñu koy créé c'était pour euh, combattre l'église parce que l'église était très forte en France euh, li gën a grave nag mooy il y a beaucoup de laïcité du benn y aujourd'hui mun naa ne sept mm-hmm. laïcité. te ba laïcité boobu ma laïcité bu ñuy jëfandikoo instant pour xeex islam en France. Mm-hmm. la laïcité euh, nu mu tudd sax la laïcité euh, gali gallicaniste ak y' a beaucoup de laïcité yoo xam ne ñu ngi amandoo te laïcité yëpp ñoom ñëpp dañoo bokk benn benn benn muul. c'est une réalité française dafa bokk ci histoire française c'est une création des loges maçonniques françaises man loolu dafa ma jaaxal sax lu tax laïcité nekk suñu constitution ñun mhm. ndax ñun amuñu rapport ak loolu wax dëgg yàlla donc ñun Sénégal li ñuy wax Sénégal ba suñu constitution mhm. tu verras des des des des déclarations xam ne yoonu Sénégal nekk la déclaration des droits euh, et des bu 1789 def France euh, yoonu Sénégal nekk ñu koy dugal suñu préambule constitution et lii yëpp ça nous regarde pas ça nous intéresse pas parce nekk ñu foon te bokkuñ si te valeur muy incarné di ko jàngale valeur yooyu dafa contre sax diine parce yoo wax ni diine bokku ci donc man wax dafa jot ñu xoolaat kon suñu constitution d'abord ñu bàyyi la ah, professeur nga tàggoog auditeurs yi waaw xanaa di am mbégte euh, seex ak yow jotaay bi xam naa kii moom euh, safoon na sap et <laughs> ça fait vraiment très plaisir c'est vrai c'est vrai ah macha allah <laughs> mm. euh, di yi xam ne ñu doon déglu si biir réew mi ci bitim réew mm. di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex ba lépp lu fi wax daal mu mu nekk yiw ndax mm. jubluñu si lu may jéem a yeete ak mm. jéem a partagé pour nit yi mën a gën a xam leen war mun si taxaw mm. jubluñu si dénigré nii tuutil doomu aadama yàlla na yàlla defal tawfiq mais yaa ngi wax yoo xam ñu bëri wax nañ ko dem nañ rëbës de waaw ñu bëri ñuy wax dem rëbës c'est parce que xamuñu lu ñuy wax wala boog amuñu preuve suñu mais yow dafa am foo ko foo ko teg ah, fu wóor man lépp lu may wax c'est parce que suñ <laughs> ñu ngi koy remercier bu a pour la vérité nekk expert financier et spécialiste en finance islamique ñu ngi koy remercier euh, bu baax a baax ci disponibilité di ko remercier tamit ci livre bi nga xamante ni euh, may na ma ko di la révolution de l'argent dans l'espace franc euh, fondement de la prospérité des peuples xam na incha allah daañu def ab débat ci français fa ak passage bi jóge ci franc fa dem ci éco c'est intéressant parce que ne nga éco mm. bi c'est plus catastrophique que le franc waxtaan incha allah di remercier Mamadou Diaw bi nekkoon ci technique bi di leen remercier yéen suñu auditeur émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu euh, page su suñu chaîne YouTube euh, réew mi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah euh, ci beneen émission beneen thème ak beneen invité